ñu ñëwoon tey ci commune Parcelles Assainies pour euh, set si waa mairie bi seet si population yi pour euh, waxtaan ak ñoom ndax tabaski bi mu ngi yegg si euh, ñu lee leen ñaax rek ci attitude bi ñu war a am vis-à-vis du réseau d'assainissement donc mbaax yi bopp xar deru xar yi. bu ñu ko defee ci réseau bi daf koy bloqué te bu ko bloqué dafay indi ay bouchons yi nga xam ni mooy indi déversement d'eau usée dans la rue te ñu ngi jëm tam ci hivernage a ren particulièrement dafa teel a commencé les opérations pré-hivernage donc bu ñu def li ñu ci def yëpp euh, bu ñu gestoo tey tabaski bi jàll ñu buure ko ak mbalit ak déchets solides alors que dispositif euh, pour jël déchets solides yi am na avec l'UCG dafay indi ay bouchons yi nga xamante ne mooy indi problème aujourd'hui ci réseau bi et bu hivernage bi jotee mooy indi problème mu euh, inondation ainsi de suite waaw sensibilisation moom xam nga dangay ngay dem da ngay euh, dem dellu si waat du ja doo communiquer benn yoon rek mu jàll dañuy am impact bu baax waaye day laaj itamit bu veille bi comme lu mel ni tey euh, tabaski bi di ci des bariwul ñuy dellu si waat di gis si population yi waxtaanaat di ñaaxaat rek waaw ndax naxante ndax yëf yi ñu ONAS la ak population yi ONAS day jàpp population yi collectivité yi jàppale ñu si ñu def le mu yegg fa mu war a yegg ku ne am sa comportement ak attitude citoyenne bi nga xam ne moom la ñuy xaar vis-à-vis du réseau d'assainissement. ONAS fekk si nañu si suñu gox ñëw ànd ak ñun parce que xam na suñu problème ñu ngi koy dund boobu ba tey di ci autre solution mais xëy na am na ci loo xam ne du suñu prérogative ONAS ñëw ak dooleem. pour appuyer parcelle xam ne aussi loolu moom moo ko war moom en tant que euh, moom en tant que ku population am soxla mu xam loolu ànd ak direct seen directrice ñëw di ko démarché boobu ba léegi fekkuñu ci aussi nelawuñu lekkuñu naanuñu avec le maire Aboubacar Jamil Sané mi nga xam ni xam na li koy xaar parcelle xam na li mu dundu nawet bi passé xam na li mu yéene ren donc su ONAS ñëwee di ko jàppale dañ ciy sant di ñaan aussi fi suñu doole yam ñun waa parcelle doole onage yam fa doole nguur ñëw fekk suñu fa parce que su ñëwul rek du ñu am lu ñu bëgg parce que am na lu ñu bëgg am na lu ñu mën mais am na loo xam ne du suñu prérogative donc ñuy def appel à toutes les autorités pour ñu ñëw jàpp ci parcelle ak feneen fudul dul parcelle pour li ñuy dund ci nawet mu mun a deñ tey ñu ñëwoon fii tey suñu ay tànk fii ci Parcelles Assainies amoon benn activité de sensibilisation mais aussi Euh, déglu aussi tamit doléance su population bi nga xamante ne maire madame le maire mi ngi ni suñu ginnaaw donc ak euh, bàjj nu gox yeeg imam yi ñoom ñëpp wax nañu li nga xamante ne jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy dund ci wàllu assainissement fii si Parcelles Assainies ci kaw loolu jël nañu not lépp loo xamante ne matukaay la war nañ ko mën a jël balaa hivernage bi di ñëw donc incha allah luñ ci mën dinañ ko yeggal kilifa yi ñu taxaw ci le plus rapidement possible mais anticiper anticipation bi mooy lan mooy curage réseau bi def nañ ko curé nañu réseau bi euh, plaques yi nga xamante ne tey jii regard yi nga xamante ne dañu sàcc plaques yi donc ñi ngi jël ay disposition waxtaan naa waxtaan nañu ak mairie bi pour su ko defee ñu transmettre ñu liste regard bi nga xam regard yi nga xamante ne war nañ fa teg ay plaques incha allah dinañ ci procédé wu balaa nawet bi incha allah ñu poser regard yooyu leneen li aussi au niveau des stations de pompage nga xamante moom mooy ko yóbbu ci exutoire yi foofu tamit dina renforcer capacité yi fi nga xamante ne pour au moins mën a euh, pompe yi gën mën a accélérer seen liggéey pour que au moins mënuñu wax ne nag inondation du am parce que actuellement ni période bi ñu toll nii euh, période euh, changement climatique la mais au moins ñun dinañ jël suñu ay dispositions yoo xamante ne quand même dina mën a soulager quand même bi. vol de plague yi moom phénomène la boo xamante ne dañ koy constater le plus souvent du Parcelles Assainies rek Sénégal yëpp la sax franchement fépp koo gis ne am na réseau assainissement rek day am vol de plague te loolu nag parfois inconscience mooy tax. moo tax population bi il faut aussi tamit ñuy continuer di wax ak nit ñi parce que nit ki aussi dina def loo xamante ne amaana daf ko xamul moo tax mu koy def parce que kii ñëw fekk plaque boo xamante ne cent mille francs la ko état lay jar si état mu ñëw jël ko jël jam jaay ki nga xamante ne mooy defar ay kiw di rek yooyu te du ko jaay lu dul ay ay cinq mille francs donc loolu il faut que nit ñi war a mën a bàyyi loolu te boo jëlee plaque bi tey nga jël ko dina mën a problème de sécurité day am parce que mag yi jóg fajar di dem di julli ji jàkk ja mën na daanu si kii bi xale yi mën nañu daanu si mit si yi donc jigéen ñi aussi tamit bu ñuy xëy fajar di dem ci marché yi mën nañ ci daanu donc lool yëpp c'est des choses yoo xamante ne euh, il faut que vraiment nit ñi bàyyi xel ci loolu parce que chaque fois ngay renouveler di changer plaque yi nit ñi di ko jël euh, ñoo population boo xamante ne ñii parfois xamuñu sax wu wuñu dangerosité wu loolu ñuy def donc loolu il faut que ñu bàyyi ci xel bu baax branchement clandestin yi moom it vraiment loo xamante ne tey boo amee pour nga am branchement bu normal il suffit nga ñëw ONAS tey ñu defal la defal la branchement bu régulier raccordé la normalement doo am benn problème te pour pour la vie la nga xamante ne kër gi du am benn retour loolu je pense que ni moo gën ngay jëm di xool lu yomb di xool plombier bi ci koñ bi wala jël benn monsieur X mu ñëw bu la defal branchement boo xamante ne di ko raccordé soit mën na ko raccordé en contresens wala mu raccordé ko ci réseau eau pluviale wala mu defee ko amaana noo xamante ne tey bu réseau bi feesee ndox bi dafay retourné di dugg sa loolu yëpp jar a moytu la. branchement clandestin xamante ne fraude la. maanaam lu jaarul yoon branchement boo xamante ne ñëwoo ONAS ba ñu ñëw ñu jël entreprise boo xamante ne agréé na pour mën a liggéey liggéey bi parce que assainissement aussi tamit dafa dafa nekk benn composante boo xamante ne dafa laaj technicité boo xamante ne bu war moom lañ ci war a def pour mën a am raccordement bu normal